bon discours euh, ku bëgg a def troisième mandat la. loolu nga gis loolu laa gis <laughs> parce que en sa c'est-à-dire yi xëy na dégg nañ ko jarul jaratu sax muy ñuy am lu ñu ci euh, détaillé. man gisuma loolu non si man loolu laa gis. ok léegi bàyyi ko mu expliqué lan moo tax lan moo tax nga jàpp ni. Mhm. président discours yi mu tenir Paris ak bi ñu clôturer dialogue bi euh, dafa bëgg a def troisième mandat. bon le président Macky Sall dafa wax ne dañuy préparer pour dem gagner en 2024 loolu wax Paris. Mhm. nous allons vaincre en 2024 ñun ñëpp yuuxu mhm. mu ñëw Sénégal li mu wax Sénégal en français bu ko waxoon en wolof te amaan tey cool dina bëri trop ci affaire troisième mandat bi ndaxte bañ ko wa laajee si euh, bañ posé question si euh, démission euh, président parti dafa taxaw daal ni moom du ko def parce que il a deux Euh, mouvement et parti politique derrière lui derrière sa coalition. Mhm. donc président bu bëgg a def un second mandat mënut a si li nga xam moom mooy euh, euh, parti am mënut a démissionner si parti mais une condition nga bëgg a def un mandat unique. ok loolu la wax. Mhm. xam nga tey ku bëgg a def un mandat unique koo xam te ne jeexal na ay mandat kook soxlaa kooku soxlawul muy àddu ci li nga xam moom moom mooy mooy kooku soxlawul muy opposé si démission parti. si yaakaar naa comprendre ngeen ma. mais peut-être doo ko def aussi pour yeneen génération. Ah, président yi dama sa analyse ma def rek loolu c'est-à-dire que tey bi ma fu bëgg ngeen xalaatee ko moom li mu wax. Hmm. dafa ne décision bu mu war a jël ça va du contexte. il va la war a défendre. non waxul de ça va du contexte. loolu la wax tu l'as loolu. la wax du ko du ko du ko du ko mhm. def du ko def moom muy décider moom ce sera une décision assumée loolu la ah si si mais il a il a dit que. moi j'ai écouté man déglu naa ko en boucle déglu naa ko ay yoon yoon yoon nee na décision bi mënul génn si contexte bi nekk loolu la wax en français. ça ça ne peut pas sortir du contexte daal yow en bëgg euh, président bëgg na def troisième mandat a jël du génn ci contexte bi nekk c'est-à-dire yi changé na xëy la mu doon wax en deux mille dix-huit contexte ba mun ba fa mu nekkoon en 2018 xëy na am na changement de contexte bi am en 2023 ba tax tey discours bu mu war a jël ak position bu mu war a jël il va l'assumer pour être candidat en 2024 Macky Sall va être candidat